les situations des na leen laaj ñoom kon lu ñuy jariñ ci biir réew mi parce que kees yi tëbul tëb naaw dugg Sénégal amul ay laaf dafay aw ci géej gi mbaa mu aw ci jéeri ji mbaa mu aw ci roppalaan fu mu ci mën di doon am na ñu ñu fa toogal di def ay contrôle kees yi est-ce que fayuñ fa defuñu kes question la bu fekkee defuñu dédouanement kon fan la ñu jaar kon dafay wane suñu bunt yi suñu frontières yi fu neex waay jaar ba la neexee dugal lu la neex mhm. loolu benn la beneen danger bi ci des mooy waxuma ñu enquête dong àtte leen mais lan moo nekk ci ginnaaw jël sàngara alcool di ko def ci lu ay xale di naan lu ne ci ginnaaw c'est-à-dire que il faut au fond des choses benn ñaare bi ci des ndox mi lépp nekkul sàngara à cent pour cent équivalence su xaw ma cinq wala six pour cent ci wàllu sàngara dong moo ci nekk mhm. mais li des ci ndox mi lan la li li des ci ndox mi lan la yooyu sénégal yi dañ ko bëgg a xam benn quantité ndox ñun la équivalent cinq pour cent mooy sàngara quatre vingt quinze pour cent yi ndox la ma neen mu bon lan la mun na nekk musiba ci xale yi léegi loolu bu commerce intérieur jógee bëgg cee wiccaxu ni moom yi fi kumpaam la ñun ñu ngi dund ci danger ñoom dañu waroon a taxaw kanamu justice def ay justification ñu xam kees yooyu fan la jaar bu dugg Sénégal ñëpp am nañ ci part de responsabilité mu euh, kon euh, ñu euh, àddu ba tey jëmale ko ci leneen ñeel assemblée générale bu cadre unitaire des syndicats et amicales du groupe de la poste ni ki tay ci suba la woon ci teewaayu secrétaire général bu CNTS FC moom Cheikh Diop mu xam le ni fii ci réew mi gën kaa néew lu tolloog ñeenti junni ak juróom benni téeméeru liggéeykat mën nañoo ñàkk seeni ay xëy ndax dañuy jalgati seen i ay droit ñu woon di ceeg moom tey jii li xew fii ci poste emplois menacés à cause de l'État il faut bien le liggéeykat yi seeni droit ñu ngi koy nappaaje loolu mu tax coalition yi des centrales syndicales taxaw nañu ne léegi tey jii à partir d'aujourd'hui jël nañ en charge tawatu liggéeykat yi te fas yéene nañ ko saytu ba utal ko ay solution ba ñu neppee ci assemblée générale boobu lee liggéeykat yi amaloon nañu ab toogaayu ñaxtu ca buntu direction générale bu post bi waaye yàgguñ ca ndax police moom moo leen fa fekk daal di leen kon fay euh, jëlee waaye nag ñoom li ñu daal di xamle mooy du yam fii li ñuy euh, joytu nag moo di ay jafe-jafe yu ñu am ci wàllu wàllub koom ñuy sàkku ci ñu jox leen lu tolloog euh, ñaari fukki milliards ci suñu ay koppar ci wàllub rémunération ak lu tolloog ñeent fukk ak ñaari milliards ci ay bourses familiales ñoo ni ceeg ci janjal tali bi lañu mujj a wàcc ngir ñu déglu leen liggéeykat yi nekk ca